بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي أرائي قيله هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وسمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وبارك حمدا لمن أرسل الكتابة حتى بيعنا نفعنا كتابة مصلين على وسيلة له خير الذي أرى عن قيله واشرح فؤادي وتعطم فتحي fii naa fi leen baax chari bokk leen ñu seetaan seen télévision Lamp Fall TV ñu leen nuyu di leen ziar leen ndokkal leen ba laq ni ñaan borom subhanahu wa taala ñu déggal dem mbékk ci dellu si fas yéene naa ne jotaay ñu baax ànd yéen muy seen émission bi ñu tudd Islaahu Daara ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mame Balla Mbacké Mokhtar muy émission wax li ñu ci waxtaan ni ñu ko fàttalee saa su nekk rek mooy njàngalam Cheikhul Khadim te bu ñu waxee njàngalam Cheikhul Khadim ñu ngi ci jublu al imaanu wal islaamu wal ihsaanu bokki yi neen ko xamante jotta bi ci ñi koy top xam ngeen batay ñi ngon ci tom bi tudon tuddoon durus fiq am ay bind fiqh te fiqh moy xam-xam bi nga xamne moy jangal mukallaf naka la wara jëfé digënté bok borom euh, naka la wara jëfé digënté ma ak bopam waaye naka la wara jëfé digënté ma ak morom ñu ci ñu doon waxtane tom bu mag bobu ñu wax asala euh, ba defe ñu ngi ci Euh, waxtaane xeetu sujjóot yi muy sujjóotu tilaawa mel nag bokk yi ko xamee ci jataay bi danañuy def léeg-léeg hmm, bu fekkee nañu tomb boo xam ne dafa xaw a yaatu ñu ci yaatal ak a xóotal hmm, léeg-léeg bu ñu tolloo ci ay événement yoo xam ne dafa yitteel nit ñi nga xam ne dafay attirer attention nit ñi ñu aj tomb bi euh, waxtaan ci xeet maam ci ci xew-xew yooyu xëy na benn jataay wala ñaar wala euh, lu mu laaj rek seet luñ ci mën a Euh, tontoo yenn ci wala euh, laaj yi nga xam ne yenn mbokk yi dañ koy wala yenn càkkutif wala leeral ci yenn yoo xam ne xëy na day am mbokk yu koy faral di euh, sàkku ndax niñ ko xamee mm, diine lislaam da bàyyiwul dara bàyyiwul dara lépp loo xam ne mu kallaf mi ngi koy def rek moo xam muy diggante borom ni ma ko waxee léegi muy ibaadaat da ko war a teg ci li yent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon li muy jëflante ak ay moromi jaamam muy muamalaat yi دكوا ورا تكشي لي ينتبه صلى الله عليه وسلم جانغلون حتى بالمي ورا جفلين تكبر فمني أحوال نفسية دكوا ورا تكشي جانغلة مهمو ما تعرف إكسرين بدل الله تعالى ديوخ بيت ميو يتعرف هم نعو فاتل باري قلت واحد حرم ربنا على كل مكلف على ما نقله فعلا بغير علم حكم الشرع في فض النص دليل قطع سنتوانا وحنا نيال فحرام مالتي مكلف ميدف لن نتخمت Euh, loo nga xam ne lu ko ca boroomam sant lu mu ca atte mooy tax lu xew rek bokk dañuy dañuy yittewoo euh, ku leen ci euh, fàttali wala ku leen ci laa biire ci li nga xam ni lu ñu mën a teg te loola ci côté diine bi bokk yi neen ko xamee jamono yi dañoo nekk ci jamonoy yi njiitu réew muy li ñu tudd élection présidentielle nga xam ni wàllu politique la di wàllu woo xam ni ku ne xam na ni fi ne daanaka mooy eh, li ñu lay di njàmbat mooy yitte nit ñëpp ci lañ jëm ba kenn koo xam ni eh, yaa ngi jàngale ak loo mën di jàngale rek du ñàkk ni moos dañ ci interpréter ndax ko waxee léegi nit ñi daam ñoo xam ni ñoom diine lañ gëm moom lañ yaakaar ci la ñuy dellu même da ngay gis sax yu egg ci di woote naa sëñ bi man ndax sañ ma maa di wala sañ ma maa def nangam yu demee noonu waaye yëpp bëgg xam rek bëgg xam ak bëgg a tegtal ni ma ko waxoon léegi moo tax kon Euh, lu mel ni jataayu tey bi dañ ko bëgg a jëmale ci wàll woowu euh, seet luñ ci mën a laabirante ak bokk yi ci loo xam ne mënees na ko euh, jariñoo te ñun liñ ci gën a yitteel nag bu ñuy wax loolu mooy barab bi nga xam ni dañ ko nekk muy Touba muy barab bu sensible boo xam ni gis ngeen ni ni ni ni mu ni mu demee ni mu demee kon waxtaanu tey day mel ni day jëm ci wàll woowu xëy na taxawaayu Touba ci diine waaye taxawaayu Touba ci politique wala ci yëngu yu àdduna yitam day mel ne noonu lañ koy tënke waaye liñ wax ne xëy na mën naa bañ a doon ay ay ay atte wala ay waaye ay ay principe lay doon rek ay principe yoo xam ne moom ma nit ma na caa sukkandiku tegtaloo ci dara tegtaloo ci eh, dara incha allah comme niñ ko xamee ci jamono yi xam ngeen ni Touba gii nu ne ci. Eh, way politique yi ñi xëccu ñi tuddé ay politiciens ñu ngi jëkënte jëm Touba ci anam yëpp eh, ñi nga xamni dañu dañoo fee bokk wala dañoo tuddo ni fi lañ bokk ci walu aju ci walu pass pass eh, ñi ngi gëna fessal lool di ko gën di di di melni dañuy am légitimité bu ñuy xëcc ci loolu jëme ci seen bor même ña nga xam ne xëy na mënuñ ni fi lañ aju ci wàll woowu sax nde fi moom ñëpp fi aju sëriñ bi moom ñëpp aju ci moom boo xoolee nu mu tudde euh, ñi aju ci moom ngay xam ne loolu ñëpp ku jëm ci yàlla rek mën nga ne moom ci aju ay wax yéenam ni muy waxee moom boo xoolee daanaka euh, lislaam ñëpp aju ci moom waaye xëy na mënees na ko waxee noonu nit ñi nga xam ne dañoo fesal seenu aju di ko tuddoo di ko woote woo ñu tuddeen ay bi sëriñ bi gis ngeen nit ñi ngi feddali seenuk askanoo ci Touba seenuk aju ci sëriñ bi euh, xëy na lañ ca mën a tiire ci profit ñu koy tiire euh, ña ca des tam nga xam ne mënuñ leen a qualifié comme ñoom ah, ñoom it kenn ko yaa ngi seet ay relation am ak tuuba euh, te xam ne Touba Touba ak ngir ngir ngir ngir ngir man fee jëm si ngir ñoom itam seet luñ fi mën a xëcc luñ mën a jariñoo ak ñu xam ni barab bi ci boppam boo ko seetloo itam nag maanaam day mel ni contradiction dem ci loolu ndax barab bi barab bu ñuy tere ko fi politique la Euh, maanaam ku ñuy tere ko fi euh, mëne ay activité politique loolu mel ne ay yëngu-yëngu gis nga meeting sax dañ ko yéen biir dëkk bi yu bëree bëri dañuy ñëw ni sëriñ bi day tere ko fi def ak loolu lépp nag téewut ñooña moom bu ñuy yëngu ci yooyu ni fi lañ koy tàmbalee si wala fi lañ koy jeexale si wala man daal mooy seen jaaruwaay boo xam ne moom dañu jàpp ni mënta ñàkk su ko defee loolu nag euh, war nañoo laaj lu ko sabab lu ko sabab lu tax politiciens yi maanaam jox Tuuba cër biñ ko jox ñu ne Tuuba du fi politique waaye ñoom obligatoirement fa lañu tambalé seen i yëngu politique wala fa lañ koy tejé tëje seen jaar walu bu ta ñak daal nga xam jox nañ ko yitté bo xam mom joxuñ ko benen barab en tout cas ci liñ wax ci kaw gi ak ak liñu ñu gis maanaam lolu lu ko sabab mu melni laaj bu buñ ko bëggé tontu nak xeyna na mën nañoo dellu ci ñom ñom ñoo ñu fi ñew wala ñi fi yablé wala ñi koy tuddo suñu delloo ci liñ wax ñom ñaari mën nañ cee sukkandiku pour euh, jéem a xam lan moo sabab maanaam doxin woowu doxin woowu bu ñu delloo ñoom seeni wax day mel ni eh, dañ ca fekk lu yël seen doxin woowu ci tuubaa nga xam ne moom politicien bu ne daal moom bu waxtu élection jotee wala xëccoo jotee moom da jox Touba yitte danga ko jox cër eh, danga ko jéem a eh, da nga fi jéem a féete bëgg ñu féete woo la bëgg leen a féete woo itam lu ñu seetlu la Euh, ñu di ko waxe seen biir wax jooju nag kon ñu ci delloo mën na ni mm, mën jafe ki tontu euh, bokk na ca loolu ñu wax ñoom euh, dañu wax dañu fi sàkku si barke dañu fi sàkku si barke ziyaare si ziyaare si dëkk bi ziyaare sàkku si barke bu ñu xoolee xëy lu mel ni barabu sëñ bi gis nga ko démb rek dégg ngeen kàddinaa boo xam ne nañ ñëw na Touba nga xam ne ca barab bala dem ziyaare barab ba ñaan fa wax la mu wax ak sëñ bi génnaat dem demut ci ziyaare jox si te mel na ne amoon na kilifa gu fi neen goo xam ne am nay jamono bi mu yittewoo Tuubaa daan def noonu daan def bu ñëwee balaa jaar ca kër sëriñ ba day jaar ca barab ba siyaar euh, barabu Cheikhul Khadim ba noppi doog a dem nga xam ne ñoom dañoo gëm la kilifa googa ne ko maanaam sëriñ bee ko fi ndax ñoom xam nañ njabootu sëriñ bi fi sëriñ bi toll ci ñoom fi leen sëriñ bi àgg xëy loolu stratégie la woon bu doon def euh, mel na ne sax na ginnaaw ba fi ba jugee ca fonction boobee day mel ni defatu ko day mel ni defatu waaye loolu yeneen mbir la yeneen mbir la alakuli am na ñoo xam daal day mel ni leen fi en dañoo xam dañuy barkeelu ci barkeb sëriñ bi nga xam ne ma xëy na jëmmi nit ñi andiwu leen waaye jëmmi barkeb sëriñ bi euh, moo leen fi andi maanaam baatinub sëriñ bi nga xam ne dañuy dem ziar ca baram boobe euh, ñaan fa wax fa seeni soxla am na ñuy def noonu la ñu doole ca di sàkku ñaanu xalifa bi di sàkku ñaanu xalifa bi muy ki nga xam ne moom la ñuy tudde Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf ñu sàkku ñaanam nga xam ne moom dañ naa ñaanam rek la sàkku ñaanam waxuñ ne dañuy sàkku ndigalam ngir wala influence am wala dara waaye ñaanam la ñuy sàkku nga xam ne la ñuy ca barab ba mooy barkeelu sàkku baatinub sëriñ bi day mel ni moom la dem ci xalifa bi itam sàkku baatinam moo fa nekk ngir mu ñaanal leen la lañ yaatal sax ziar ñeneen ñoo xam ni ay dañ leen di ziar ngir waaye la ñuy wax daal ñoo dañoo demoon Tuubaa ngir sàkku ji ñaan ci sëriñ bi dañu ne moom ngir sàkku ji ñaan sëriñ bi kon loolu bokk nag ñoom li ñu wax ni moo leen fi indi te ñu man leen ko nangul tam nag euh, beneen ba xëy na moom itam ma ne sa ko caa gis mooy euh, sàkku ñu leen faral nag ñu leen faral ndax niñ ko xamee Touba euh, électeurs yi xaw naa bari comme niñ ko waxee ñoom dañu wax ne ginnaaw Dakar Touba comme ginnaaw bu jee ci nombre nit ñu dëkk ci dëkk bi ñu tudde ñoo dëkk population bi euh, ginnaawoon Dakar bay capitalu Sénégal mën nañu Touba moo ci topp mooy deuxième ville bi ci nombre population wala ci superficie la ñu mën su ko defee loola nag kon ñoom jàpp nañ ni bu dee ci wàllu woowu ay électeurs bari na fi lool ba ku ko gañe mën naa euh, laa dimbali ci leneen kon mel na ni bokk na ca la nga xam ni euh, daa leen tax a ñëw itam sàkku ñu ànd ak ñoom nag sàkku ñu far ak ñoom sàkku ñu leen wateel amna ci ñukoy biral amna na ñoo xam ne duñ ko biral dañuy wax ni dal mom dañu sàkk ci ñaanu señ bi rek waye wóor ko waxuñu sax nañu waye nak euh, deug deug bu de jamono yu xew ñom ñoom dañuy campagne si dañu te koy campagne ko war dëgg wussi mom nëbbuñ ko tax ñi ngi fi ak seeni mbolo ak seen nit ñoo xam ñi ngi yore seeni koppar ak seeni moy diko ko ak seeni yef dugg ci nit ñi manam kon ñaarelu leen fi indi moy wut ñu far ak ñom wut ñu leen euh, woteel muy ay électeur ci seeni wax ak ci lañu doxal euh, ñetteel ba bokk na ci yoo xam ne xëy na daa tax ñu du fi ñëw mën nañu ko dégg ci li ñuy wax ñoom wala ci ñu gise ko ci li ñuy def mooy euh, courtiser murid yi dëgg-dëgg maanaam ñu aju ci dëkk bi maanaam neexal leen neexal ñi aju ci dëkk bi peeg leen ngir ñu ànd ñoom daa am ay nit ñoo xam ne dañoo aju ci sëriñ bi ñoom ku wan sëriñ bi ku jëm ci sëriñ bi ak noo ci mën a jëmee rek ñoom da leen di neex waaw ñoom joxal sëriñ bi cër Euh, jëmal ci sëriñ bi lool rek lañ soxla ñoom duñ jéem a seet la ca ginnaaw ñoom la ngay daal boo ci boolee sëriñ bi ñoom mën nañ caa bokk boo ko ci boole mënuñ caa bokk waaw ah, am na ñoo xam ne waaw am na ñoo xam ne moom loolu am ñoo dañ naa am kii ñoom murid la wala burul murid ma ngi fay dem yi demee noonu la ñuy wax ñoom maanaam nga xam nag dañoo aju ci sëriñ bi euh, ci pas-pas di ko tuddoo nga xam ni moom luy sagal sëriñ bi sëriñ bi sax yàlla sagal na ko waaye lu lu lu ku koy warmaal ku koy jéem a safoo kuy wane ak cofeel ci moom euh, ñoom kooka dañ koy sopp ñoom itam dañ koy safoo dañ koy jox warma am na ñoo xam ne itam loolu moo leen dendi kon mën nañ ñi ñetti mbir a yoo xam ni xay na am na yeneen waaye mën na am doy na yu tax kon loolu demee noonu te mooy politiciens yi ñu ne Tuubaa kenn fi politique waaye ñu fay tare activité politique way ñoom seen activité politique ñu fay démarrer wala ñu koy fi collecturer bokk na ca ñu ni dañuy ñew sakku ci barkeb sëriñ bi bu mag bañ siyaara barabam ñaan fa seen soxla da barabu ñaan la way ñaanu kilifa yi fi nek tam surtout khalifa ju bobbi dañ fi ñew ngir ah, ñi fi nek tam di mbolo mo xani ay citoyen di électeur ñu soxla leen ndax te te te nombre bu bari waye dañ fi ñëw itam nak ngir courtiser yeneen murid yi ak fuñu man dañ ñaju ci señ bi nga xam ne mën nañu bañ ne fii sax waaye ci yeneen barab lañ ne waaye nag ku ñu gis ñaa ngi ñëw ci barab bi dana tax mën naam ñu ñu ñu ñu tek la fen man nañu wax cër kon yooyu ñetti mbir la yo xam euh, man nañ ko tuddu ci lu sabab kon jublu gogu ñu jublu barab bi euh, mu melni nak nag euh, bu ñu xoolee ci tomb bu ñëk bi juumuñ maanaam ñii ñëw fii ngir di barkeelu ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wala ñuy sàkku si e, ñaanu xalifa bi wala ñeneen ci njaboot gi ñooña mën nañu juumuñ juumuñ sañ nañ ko waaye juumuñ tam nag ndax e, sëriñ bi radiyallaahu taala anhu day day day day day wéeruwaay di di di di di làquwaay di di di ku ñuy dimbandikoo di ku ñuy dimbandikoo koo xam ni yàlla dafa fay aar aw nit ci moom yàlla dafay làq aw nit ci moom yàlla dafay dimbali aw nit ci moom itam te loolu euh, moom ma ko wax ma ko wax ma ko wax man sa borom moo ma xamal ni wéeruwaay la wool nit ñi nañ wéeru ci yow nañ wéeru ci moom ma ko na nazaa li wa laysa minni yanzau wa inni wa annani bihi xeman wa mafzau nazaa li wa laysa minni wa inna nii wa anna ni bii xeman wa mafzau nee na yàlla dana jële feneen di ma jox te du jële fi man di yóbbu feneen xamal na man nag man làquwaay laa wéeruwaay laa man làquwaay laa wéeruwaay laa ku bëgg làqu ku bëgg a foo wéeru ku bëgg a foo dëgërloo man ngaa ñëw fi man mu nag loolu nga neen yàlla nag daalika fadlullah yutihi alladi yashaahu wa xaala li qul bi ludi qul bi ludi daalika fadlullah yutihi alladi yashaahu wa qaala li qul bi ludi qul bi ludi nee na loolu nag ngëneeli sant suñu borom ngëneel suñu borom lu ñu fag waaye ngëneel suñu borom la en tout cas borom bi daal nee na ma nee na ko wax nee na ko xul bii ludi nee leen dañuy eh, wéeru ci man dañuy làqu ci man ay waxam yu mel noonu yu bëri la wax na dañuy yàlla dimbali aw nit ci moom hadiyatullahi almuin saqat li gayri lain walyemu billahu yuin man shaahu fi qadi walyemu billahu yuin man shaahu fi qadi nee na yàlla dana dimbali ci man aw nit tey ñu ko soob dana dimbali ci man aw nit eh, ñu ko soob ëllëg walyemu billahu yuin man shaahu fi qadi ay waxam yu mel noonu la ak loolu lépp nag eh, waaqe saxal ko maanaam ci réalité li xew li nit ñi dund ñu gis loolu am na gis nañ ni euh, euh, bari waa nañu làqu ci sëriñ bi mucc bari waa ñu fiy sàkku si dara ci moom am ko ak ak lu man doon nag waaw loolu maanaam euh, ni ko sëriñ bi waxee ne yàlla moo ne man ne làq waay la wéeru waay la foo ñuy sàkkoo ndimmal la ndimmal loolu adduna wala ndimmal alaxira gis nañ ni réalité saxal na ko réalité saxal na ko ci ay yu bari yoo xam ne ma joxe misaal du ko jar ñim jamonoon tam dañ ko tàgg tam ñu tag ko ci non wax ni sëriñ bi dal mom mom mom mom man maanaam xéwal la xéwal la xéwal la maanaam sëriñ bi ni ko Cheikh Sidi Baba waxee rek man ne sëriñ bi moom ak xéwal la xéwal xewaluk yàlla la xewaluk yàlla nak kuy jaamu yàlla sa ngi taa xéwlu acheikhu niamatun awlaaha haadil xalaa'iqi kullaha mawlaaha nee na sëriñ bi ak xéwal la goo xam ne yàlla moo ko méng bindeef yi rek noonu moo sun borom daal mu doon ci xéewal gu am solo nag fa alhamdulillahi alladi niamahu laa yastatiu ibaduhu ixsaaha nee na yàlla xéewala mii dañ ko caa war a sant ndax bari na bari goo xam kenn mënu ko ndax Sëriñ Tuubaa xéewal la Sëriñ la bari na ñoo xam ne Sénégal fi ne bu tolloo fii dañuy tiit lool waaye euh, ñu wax ko mu ñàkk wax yu mel nii dañ ciy génn te suñ ci génnee nag ku seetantal da nga gis ni lanu ci génne Tuubaa génnu ci situation yu mel ni moom ku xam Serigne Touba wala nga xam dara ci moom xam li mu bind ak li mu wax ak li mu ñaan xam njaboot fi ñu teg seen tànk la ñuy dox ak leen yàlla may man ngaa bañati sam xel mën naa dal waaw coow li dana bari lool waaye nag ndax kenn ku fi ñimee xëy di def lenn te bu la kilifa ne teg ko si doo ko teg si amul ak doon nag ku doon loolu sama def na ko sama borom ndax kenn ku ne am na foo leen yaakaare ku leen yaakaarut ña la topp dara la nga yaakaar leen am na fu ñu leen yaakaare kon xëy na am yoo xam ne duñ ko wax ca kaw waaye am na ci loo xam ne moom lus maanaam saafara la am na ci yoo xam ne moom même ku ko jéem a def itam man dañ ko doon nangu est-ce que dul nangu moom kenn mënu ci dara loolu sama borom def bu doon fu nee réew bu doon mu neex a taal fu neex a indi coow wala mel na na nga ni kon def na ni réew yëpp def ndax ndax ndax ndax eh, ambition yi ñii am mooy ambition yi ñooñu am rek eh, xër ci nguur bëgg caa ak boo ca jotee jógee doo boo ca jotee doo ci jógee eh, loolu dafa yàgg sa sa sajaratul xulli wa mulkin laay bi laa cheikhul mulkin laay bi laa loolu doomu aadama dafa bëgg a nguur sunu maam aadama alayhi salaam nguur gudul folliku gu sax la ko iblis naxe woon naxe woon ba lekk loo ko ca garab ga loolu la ko naxoon wax waxaala lahum ma ma ma anhaakuma an haati shajarati ila illa an takuna malakayn aw takuna min alxaalidin waaw bu ngeen ci lekkee da ngeen fi nekk yor nguur euh, wax maanaam nekk ay euh, ñu dul faat daal ñu daal dootu jóg jógee fi jóg mukk man chajet xulu mulkin laayib la loolu leen ndaxe woon bu ci garab gi da di yor nguur goo xam du ngeen folli ko ba mukk doomu moo mel noonu euh, dafa bëgg nguur te dafa bëgg éternité te muy contre daa di ci moom kon lu fi xewu doon rek daa am la taxawaam mbir moom maanaam lifi fi li fi xewut tey xew feneen daam lu tax li tax i ñëpp xam nañ hmm. euh, sëriñ bi nag génnu ci sëriñ bi génnu ci ndax moom euh, maanaam maanaam xéwal la nañ jàpp ne xéwal la xéwal la wala ñoo Cheikh Sidi bi sax wax ne maa ngi ci wax ma ma darra bi jawaarihi allah yakuna rabiha asqaaha nee na suuf su sëriñ Tuubaa nekk même ba demoon ba tawatul sax mën na ko man ñàkk taw mën naa bañ a lor suuf sa waaw maa darra ardan usidat bi jawaarihi bi jawaarihi euh, allah yakuna rabiuha asqaaha nee na suuf su Sëñ Tuubaa dëkke nee na bu tawaan sax maanaam aw taggin la ci ñoom taggin waaw moo tax nee na ñii ñëw fi moom dañuy fàtte fañ jóge woon day mel ni koom ma ngi mi ne fii mooy seen koom mañ doon wut foofa tansal ufaatu birikum awtaanaha xatta tara maghnaakumu maghnaaha ñoom noonu la ñu wax maanaam noonu la ñu doon teggee sëriñ bi am na keneen beneen naar bu ñuy wax Abdullah at-Tamkali ad-Daymani moom tam tagg na sëriñ bi comme ni ko yeneen naar gaan la doon tegge ala mil ila daari salami tuuba ida xifta min raybi zamani xutuba nee na waaw tee ngaa dem daaru salaam ak tuuba su fekkee da ngaa am lenn looy tiit wala lenn looy jàq ci ci ci ci ci ci xew-xew yi jamono boo amee lenn loo tiit wala looy jàq ci xew-xew yi jamono moo xam loo bëgg la jot ca jafe la jot jot ca jafe la wala loo loo loo looy ragal la mucc ca jafe la man demal demal Touba ala mil ila dar salami Touba ida xifta min raybi zamani xutuba su ko defee li tasfara min xabsi zamani bi nazratin tanaalu biha xusnal maabi Touba nee na su ko defee boo fa rek da nga fa mën a bénéfice oo ci xoolub aji xet li jamono jooja nga xam ne ca la sa mbir yëpp di yéwéne ca ngay am ak texe ak na nga ko laaxira tàgg nañ ko yu bëri mel noonu nga xam ne boo xoolee sëriñ bi kon maanaam maanaam noonu la mel sëriñ bi daal sama benn mag di faral di wax rek nee na sëriñ bi moom nun ñëpp a yem li nu bàyyi ci moom mooy koom sëriñ bi daa woom rek daa woom ba Cheikh Mouton mun jëman dagana ci Cheikh Mamadou Amine Diop dagana radiyallahu anhu ci marsiyaam boobu wax na ci lu mel noonu ni sëriñ bi moom wéeruwaay la wa kaana imada diini ayaama umrihi ilayhi banuuhu libtixal xaqi xaduhudu kenn diine la goo xam ni saa yu ñu bëggee dëgg yëpp doomi jamono yoo xam ne bëgg bëgg nañoo dëgg bëgg a saxal dëgg bëgg a dul dëgg bëgg jaar ci dëgg bëgg lu wér euh, dañuy daal di jawale ci moom dañuy jawale ci moom mhm. euh, yaroon lahu xaqal ubuwati waajiban wa kaana yara xaqal bunwati yoxmad neen daal man waa jamonoom dañoo gisoon ni mooy seen baay euh, mu nangul leen baay ga mu gis ni ay doomam lañ mu nangul leen doomoo ga nga xam ni àqi baay da koo war ci waa jamono waaye àqi doom war waa jamono ci moom te àqi baay mooy ngay yër di toppatoo àqi doom ma ngay topp di di di di déglu waaw nee noonu min wa kaana li ahlil faqri xisban muhanna an yuwaafuuna min shatta ilayhi yurfadoo ni daal moom day mel ni euh, lu waay aajowoo lu waay musa aajowoo daal waaw boo demee ba aajowoo daal mu jafe la lu mën doon day mel ni euh, euh, loola naataange la ju nefa fa moom joo xam ni lu yomba jot la moo tax ñu daa jóge fu ne jëm ci moom kon Touba du mën a ñàkk mu nekk barab boo xam ni barabu li ñaa croisée des des chemins maanaam yoon yi le sélé bi yoon yoon day daw maanaam mbooloo dañ fi jëm rawatina pulsin kon bërëb la boo xam ne ndax li ñu bëgg daa sérieux waaw li ñu bëgg sérieux ndax jiite euh, réew mooy li gën a jafe maanaam li gën a kawe man maanaam li gën a kawe ci luñ mën a am ci àdduna maanaam teraanga bi gën a kawe wala euh, honneur bi gën a kawe ci àdduna mooy loolu kon ko ko soxlawoo du n'importe où ngay dem da ngay dem fa nga yaakaar rek waaw moo nga dem fa nga yaakaar kon bu fekkee sëriñ bi daa nekk noonu mel noonu doon loolu mu doon euh, du du du du yéeme lool kon Tuuba gii mu tëdd doon bërëbu jëmuwaay ci ñooñu rawat na ci waxtu mel noonu te naka jëkk noonu la meloon nag sëriñ bi mu fiy nekk dëkk bu mu mosaane euh, booba àll bi tojagut pour nit ñi dem fenn day jafe booba àll bi dafa dafa dafa fatt ay dédd moo fi nekk ak i déeg ak i jànj ak i euh, garab yu mag yoo xam ni yoon jafe ñax mi day lëndëm bu nawet day lëndëm ba kenn ko jaar waaye fi sëriñ bi nekk moom bu fa ne jàng tuuti ay diir bu néew rek day daal di ami yoon yu fa jëm ndax nit ñi dañ fay baagante heure bu nekk ku nekk ak say soxla ndax jekk fu mu masaane noonu lay mel waaw loolu loolu loolu loolu noteer la kon nit ñi ñëw Tuuba ci jamono ji surtout ñooñu euh, am nañu luñ ko layyile lu jaadu la lu normal la ndax li ñu bëgg fu ñu yaakaar ne bu ñu fa dee dañ ko am daañu fa dem te dañ koo yaakaare fii te ñi ko fi mos a yaakaar tam seen yaakaar du tas fekkee dañ fa dëgg ñoom waaye li ci solo mooy ñu ñu ñu ñu xam ne barab bi daal am na a particularité am na ay ay ay jagle yu ci bi def rawatina xorma ji rawatina xorma ji <clears throat> rawatina xormay barab bi ak xormay ñi dëkke barab bi te mooy njabootuk sëriñ bi nañuy bàyyi xel lool bàyyi xel rek ñu xam ni loolu daal mën na ko fee sàkk waaye boo bàyyee xel xormay barab bi ak xormay waa barab bi rek mën naa bañ jafe-jafe ñu xam ni euh, sëriñ moom daam lépp am na lépp am na lépp la mu tàggoon bi sallallahu alayhi wa ni ko sa loxo ndeyjoor bi euh, yaminu nabi fiiha ataaya li zictida waxaan ni yasaaru nabi fiiha euh, xafaaya li diantida moom it loo nekk ci moom moom it am na lépp am na lépp waaw yow daal sa yéene na sell nga ñëw ngir yàlla bañ fee ñëw ngir ay wor bañ fee ngir ay tappale bañ fee ngir wax lu dul dëgg ak i lër ak yooyu euh, loolu du jariñ ci sëriñ bi du tax a jariñ ci sëriñ bi wala loo ci jëlee lu nu njariñ tam du njariñ lor la waaw ku jóg jëm ci sëriñ bi rekk waaye bul jëmee ci moom lu ñaaw bul woote loo gëmul bul fi wax loo nërul bul fi def luy niru ay sabotaas wala yàq yoo xam ndax euh, kilifa yi ci kaw gi dafay am fu ñuy nekk foo xam ne ñoom daañ ko xam sax waaye ñoom dañu jëflante ak nit ñoom ci saa fii naka jekk noonu lay mel boo gisee yëf deme demee nii mu demee euh, ñi fi ñëw souvent dañ jul comprendre kilifa yi fi ne maanaam ma maanaam waa kër suñ Tuubaa ji dañuy ay ay ay njàccaar yu ni jar waaye nag dañoo dañuy nelaw nelaw lu ci àdduna maanaam àdduna dañuy dañ ci nelaw nelaw dañ ko dañ ko umpale umpale te dara umpaleen ci dañ ko umpale umpale ña nekkee ñoom xam nañ ko dara umpaleen ci àdduna waaye dama ñu ci xamul dara moo tax léegi da nga toog yaa nga gis conneries yoo xam ne fi ne boo xoolee jeunes yi doog a dugg ci politique dañuy jaaxle ndax la la nga gis ay conneries yoo xam ne fii ne fekk nañu maanaam yàgg yàggu sax waaye ci ci li nu fekkee lu ñu fàttali ko rek loo xam ne kenn du koy sa yaay diw koy sa baay diw bindal jël ay carte di ko jox nit leen tur ne ci carte bi leen ko seen loxo nga xam ne moom boobu mu amul carte daan amul dara maanaam ay gone yi doon for noonu rek ku xam am forme am jëmm man yàlla la woon la tax ba démb ma woon booba sama jëmm dafa xaw a tuuti waaye gis naa ñoo xam ne maa leen magoon sax waaye dañoo xawoon am jëmm dañ leen a joxoon ay carte yóbbu leen ci oto ñu wote ji kuy sa yaay diw kuy sa baay diw waaw gis naa ak kilifa ñuy wote élection ba digg ba bëccëg ay nit ñëw jël si kook seeni oto yóbbu ko mu dem taalibeem boo xam ni bureau de wat la nekkoon am feneen fu mu féete woon ñu génne ko bureau ba foton ko daal ko yóbbu ñii dañoo féete féete wuruñu faa féete man nag lu ne defloo nañu ko lu ne lu ne defloo nañu ko waaye anañu ko doon def anañu ko doon def anañu ko doon def ana ana ana ana ay 30 ans ci ginnaaw rek leader politique yi fi woon ay 30 ans ci ginnaaw anañu daana kenn euh, déggatu leen ñii fi ne itam noonu rek su ko defee nañ ko sellal te yàlla tax euh, man amani bis suu'i baa abid darar dunya wa oxra laa yu faariqu charor Sëriñ Tuubaa nee na képp koo xam ne daa jël lu ñaaw jëme ko ci man te mooy nga jëme ko ci dëkk bi wala ci njabootam bi wala ma doon nee na da nga te booy delloo lor ngay àndal te nag da nga yor ànd ak tàngooru àdduna wu àllaaxira wu du taxali ko tàngooru àdduna mooy da nga am naqari xol la nga bëgg doo ko am wala bëgg boo ko amee da nga ko ñàkk-ñàkkin wu mitti dootoo ko am te te ëllëg leen man la jaa fekk man amani bis suu'i baa bi dunya wa oxra laa yufaariqu charar wala yaatu billah kon kuy jëm ci moom te te na nga waajal sa bopp ci loolu daal kuy ñëw daal na nga ñëw te yàlla tax te sellal euh, waaw ak ak bi am na lépp nag sëriñ bi radiyallahu am na lépp am na lépp euh, lu mënta saafara amut waaw lu mënta saafara man am na lépp yaa man nasartani bil baraaya euh, wali taxoor bil munaa xiraaya nee na yàlla yaa ma dimbali ci nit ñi man a yàlla fay man nek yalla dama dafa ma dimbali ci nit ni man yalla du wacc di di defal bopam la ya ya jabaru ne na ko ma dimbali ci nit ni ba tax ndaw bëgg ma mag bëgg ma euh, buñ ñee ndaw ak mag nak lepp nga ci biir la la la la ndaw ñu wara def bu jotee ndaw ñu am na ndaw ñu ko def la mag ñu wara def bu jotee am na mag ñu ko def manam manam manam manam bo xolé fi ne yef ni muy doxé dëgg dëgg dëgg ndaw ndawi ndaw ndaw yi sëriñ Tuubaa ñooy jël dama ñooy nekk ca kanam waaye màggi sëriñ Tuubaa yi tam ñooy nekk ca kanam loo fi gis muy yëngu rek ndawam ñi ñoo cay jiitu mag bu dee lu ndaw ñi def magam ñi ñoo cay jiitu man man loolu du hasard du hasard yàlla moo ko defee noonu waaw yàlla moo ko dimbalee nit ñi jox ko ay ndaw ak mag ñu bëgg ko eh, di ko nekkal nag ci lépp ba tax nag ku nekk noo ñëwee rek da nga fekk ñoo xam ne mën nañoo eh, laa dalal mën nañoo jëflante yow ca fa nga toll ca la ngay def ak mën doon waaw bu dee yëfi mag ngay def euh, ay da nga fekki mag ñu mën a jëflante yëfi mag waaye bu dee yëfi ndaw ngay def da nga fekk ay ndaw ñu mën a jëflante yëfi ndaw ah, am na lépp daal am na lépp daal am na lépp bu dee ñu xam am na ko bu dee xam-xam bu kawe bu dee bu digg doomu bu dee awaam ñoo xam ne moom jéemu ñoo xam lépp am na fi lii jaada bi shumuusi bu buduuri aw bil masaabiha anaara duuri waaw ah, nee na am na lépp nee na yàlla jox na may jant jox na may weer jox na may euh, am làmp waaw lii jaara bi chumusi wala bu dóori bil masabixi anaara dóor yi kon sëriñ bi am na lépp am na lépp am na lépp su ko defee ku fi ñëw tam nga bàyyee xel nga bàyyi xel nga bàyyi xel loolu su ko defee Tuubaa nag euh, pour ñu xam dëgg-dëgg xorma bi ñu ko war a jox wala taxawaay wala jàppiin wi dañuy def taxarif bu gàtt rek ci ci ci ci ci ci euh, maanaam tur rek maanaam dafa am nuy wund turu turu daa am nuy wund baat baatu arab la boo xam ni li muy jublu mooy aw yiw lu teey lu baax at tayib wal maanaam euh, lu lu baax lu teey mooy moom la baatu taaba yatib maanaam Touba bu fekkee foofu la jógee. muy baat boo xam ni siiw na ci ni ko islam di jëfandikoo maanaam islam ci ci trois islam yi bi yaatu na ci maanaam siiw na ci feeñ na ci ñu jëfandikoo même alxuraan rot na ci alladina amanu wa amilu solihati tuuba lahum wa xusna maab wa xusna maab alladina amanu wa amilu solihati tuuba lahum wa xusna maab nee na ñiy jëf lu baax ñi gëm yàlla jëf lu baax tuuba ñeel na leen ak dëkkuwaay wu rafet woowee dëkkuwaay bu baax woo ñu ne tuuba maanaam mooy am dañ am am melokaan wu teey ci àllaaxira daal dañ am loolu mooy ñiy jëf lu baax dañ am melokaan wu teey ci àllaaxira am na ñu ne tuba ak garab la goo xam ni euh, ajal la gu tudd noonu garab la gu gu yéeme gu gu naat te te te te bari mbóot waaw boo demee ci circul jawahir sëriñ bi rotal na ca tudd garab googee wax na sax ne garab googee la tànn la la la la la la la tudde dëkk bi maanaam barabam bu tedd bi di Touba garab googee ci aljana la ko tuddee ngir euh, barkeeloo ko ci ngir barkeeloo ko ci bo boo demee ci euh, am na téere bi ndax doxal kabir wax na ko ci wax na ko ci waaw wax na ci ne allahumma innaka xutta zimaami ila al ard lati ixtartaha li wa banaytu fihima daarayni li abudaka fihima bil iman wal islam wal ihsan wa samaytuhuma daara salaami wa tuuba bi tabarukan bihima faj'alhuma bi fadlika wa bi jaahi wasilata ilayka sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saalimatayni tayyibatayni amin ba demee ca téer mi daawul kabir euh, wax na ci yàlla yow yaa wommat sama nos bii yaa ma wommat yóbbu ci suuf soo xam ni yaa ma ko tànnal wax loolu mbir la yaa ma ko tànnal tànnalu ko boppam waaye ay maamam tànnaluñ ko waaye yàlla yàllaa ko tànnal suuf si yaa ma ko tànnal nee na ma tabax fa ñaari kër kër ya nag moo ko tax dama ngir di la fa jaamu jaamu go xamne da koy tek ci liman ak l'islam ak l'ihsan gëm yalla di dund sharia ak di ko rafetal ci teggin ni ma tudde ñaari kër ya daru salam ak tuba muy ay kër ci aljana ngir barkeeloo ci kër yo nga barkeeloo ci kër yooyee mu ne ko ma ngi ñaan ci sa ngëneel nga ak ci dara yunus bi sallallahu alayhi wasallam yi sama wisati ci yow ñaari kër yooyee nga nga nga def lu ñaari kër yu mucc te tey ñaari kër yu mucc tey euh, waaw ak ñaan na feneen ñaan na feneen ci beneen téere euh, tam lu mel noonu euh, waccal ilahi maskani tuuba abad misraf miha bi jaay xëy man abad kon dëkkub tuuba sëriñ bi da ko tudde ak garab ci aljana wala benn barab ci aljana ya tudde ko noonu di ko ca barkeeloo di ko ca barkeeloo mu ni la tax ma sañ ko nag mooy di jaamu yàlla kese kese kese kese nee ñu daanaka wax daana wax na Tuuba ak Daaru Salaam tax ñu neex ko mooy bi mu leen di sanc da koo sëncitoon ngir dabu si ay maam sëncu leen woon ngir euh, dabu si barab yu am ndox sëncu leen woon ngir dabu si barab yu amum ñax sëncu leen ngir wax te te en général loolu tax nit ñuy sanc nag sanc boo xoolee adduna bi fi njëkkaam ay mbooloo ay doomu aadama di fa daje yu mel noonu la barab ay déeg wala ay dex wala géej wala xeer yu mel nga xay ndax doomu aadama dafa yàgg euh, soxla di jëfandikoo ndox wala barab yoo xam ne dafa naat am ñax am fa la xëy mel noonu wala barab yoo xam ne say say say bokk dañ faa ne waaye moom nee nañ loolu andiwu ko fi moom li ko fi indi mooy fu mu mën a jàmm yàlla kese kese kese kese maanaam mission bi ko yalla indee suuf fu mu ko mën a euh, accomplir ca ca comme ni mu ko bëggee loolu moo ko fi indi woon su ko dee baatu tuwaa boobu nag dañ ko jëfandikoo ci ay maxanaa yu wuute day mel ne baatu am na sens yu ñu koy jëfandikoo yu wuute waaye yëpp euh, mën nay tegtale leen léeg-léeg ñu ne jublu ci ab dëkk ab barab léeg-léeg ñu ne jublu ci barab euh, ab ab superficie boo xam dañ naa maanaam périmètre la bu ñu fii mooy Touba léeg ñu wax la jublu ci bu ñu jublu ci ab dëkk léeg-léeg ñu ne Touba nangam jublu ci euh, nit ñi nit ñi léeg-léeg ñu ne fekk maanaam population bi lañ jublu mel na ne woor nañ Touba woor nañ Touba dañuy woor suba xam nga ab dëkk du woor waaye waa Touba la ñuy waaye buñ la waaye léegi du ñu wax dañ woor nañ rek wala Touba nangam lañ def na nangam Touba def na nangam waa dëkk bi lañ jublu leen ñu ne Touba jublu ci même yoonu murit ci boppam nga xam ne même ñu dëkku Touba dañ cay bokk comme loolu wax léegi bu ñu ne woor nañ léeg-léeg da nga ciy dégg maanaam euh, ñeneen ñu nekkul ci dëkk bi sax dañ leen cay limaale maanaam nga xam ne léeg-léeg ñoom Touba jublu ci tariixa tariixa bi dañuy Tuubaa jublu ci yoonu murit lépp même ñu ne Tuubaa itam jublu ci euh, kilifteef gi maanaam jublu ci xalifa bi wala euh, ñu yore baat bi ñoo euh, alxiyaada diini wala zaama diini gi léeg-léeg wax Tuubaa jublu ci loolu kon Tuubaa léeg-léeg ñun Tuubaa jublu ñu jublu ci waa dëkk <coughs> jublu ci dëkk bi léeg ñu jublu ci yoon wi léeg-léeg ñu jublu ci xilaafa gi wala kilifa gi man nañu mel noonu waaye yëpp boo xoolee ci leen lay jëm rek ci leen lay maanaam xëy na léeg-léeg mu wuute ci waxin yi kii jëme fekkee dégg ko ne bu ñu ne Tuubaa en tant que barab barab xëy na wuute nag barab yi ci am na xorma bu fi ne waaye barab lay tam nag mën naa am lu ne ci yeneen barab di fi am am na ñoo xam ne du loolu waaye barab moom barab la barab la boo dee makkatal mukarrama bu ñu la waxoon kaaba ga ya fa xew ci yu kenn xamut maanaam yu kenn xamut waaw yu kenn xamut n'importe qui maanaam yilif na ko maanaam maanaam maanaam Yazid ibn Muawiya yilif na Kaaba ga yilif na xaram ba Yazid ibn Muawiya yilif na xaram ba maanaam lu yéeme lu doy waar euh, am na Zubayr gis nañ ko def maanaam yeneen maanaam Xajjaaj gis ngeen yem fa def ak yeneen maanaam buñ ñee léeg-léeg koo xam tuwaa moom barab bi la ci jub rek barab nag barab la moom barab la barab la euh, may safa la ñuy def ci barab yëpp donte yellu fa jaadu fa itam nag waaw am na ñoo xam ne buñ ne tubaar yi ñoom duñ ko gisee ni barab ñoom waaye dañ koy gise beneen gise moo tax ñoom duñ mën a dégg jooju léeg ñu ne waa jublu ci waa dëkk waa dëkk bi itam ay nit la ñu dëkk comme ni ñu dëkk ci yeneen dëkk yi rek soo demee yeneen dëkk yi gën a baax ci dëkk yi ay nit nga ñu man ay nit ñu ne ci seen bopp comme ni amee fii ni amee fépp noonu la amee fépp euh, waaw loolu tam aw lay wax xam ñi duñ ko déggee noonu léeg-léeg ñu jublu ci yoon wépp yoon wi itam aw yoon nga xam ne mbooloo mu yaatu la bokkut fu ñu dëkk bokk maanaam mën na nañoo wute ci ay mbir waaw léeg-léeg ci euh, khalifa bi nga xam ne ne Tuubaa djublu ci khalifa bi euh ñooñu mom lañ ci djublu te fekk khalifa bi leg leg lamuy ne man na wu tek du forcément la la la la la la la la nit ñay ne ci mbir moma ci mbir mooma léeg mu jël position ci mbir lu melni yi ni wax ne duma ci dara te ñak ak manam ñak ca def ak dindim tekki wul ni mom nit ña duñ ca def duñ ci dindi moom du ca def duñ way nit ña dañuy def di dindi euh waye li am solo moy bu ñu ko ci taxarif boobu ñu def ci Touba dañuy xam dal ab barab la boo xam ne ab dëkk la boo xam ne dañ ko sos ngir jaamu yàlla nekkutoon foo xam ne dañ ko sos ngir dëkk fi rek comme ni mu amee ci aada nga xam ne kuy sosub dëkk ku ne pour dëkk fa diirub la ngay dund la da nga daa bàyyi xel tam jumtukaay yoo xam ni euh, yuy dimbali nit ci barab la ya fa mënta ñàkk lu mel ni ndox ma lu mel ni yoon lu mel dund xeet di maanaam lu mel karang kaaraange xeet bi dañ ah, ko daan maanaam yéen lañ daa dabu waaw waaye susuñ ngir loolu kese moom ki sos susu ko woon ngir wut bërëb bu neex a dëkk waaye moom bërëb bu neex a jaamoo yàlla ci liimaan ak lislaam ak lixsaan eh, moo ko fi indi moom sëriñ bi radiallahu taala anhu jaamu yàlla nag di jaamu bu ñu jaamu rek jaamu al ibadatu waaw ibadatu ndax boo xoolee baatu ibaada aw tur la boo xam ne dafa euh, làmb mboolem lu baax lépp loo xam ne yàlla bëgg na ko ci pas-pas lépp lu yàlla bëgg te gërëm ko ci pas-pas ak ci jëf ak ci wax loolu mooy ibaada al ibaada baat la boo xam ne dafay boole lépp lu borom bi subhaanahu wa gërëm lu mu bëgg gërëm ko ci ay pas-pas muy ay ngëm-ngëm ak i ak i ak i jëf ak i wax nga xam ne boo xoolee kon day mel ni ab système la maanaam xibaada système de vie maanaam système méthode la bu ñu war a aw aw doxin la aw doxin la bu ñu war a doxe waaw doxin woo xam ni individu bi daf ciy dox muy fard waaye collectif bi daf ci war dox tamaaw waaw maanaam kenn ku nekk dafa war na ci jaamu yàlla waaye mbooloo mi dañu war na ci jaamu yàlla nga xamni seen ibada rek muamala rek yep day day day tuddu jaamu yalla kon al ibada man nañ aw doxin la aw aw dundil ab système la ab ab ab ab méthodologie la buñu wara jaar di dundé borom subhanahu wa taala tanal ko nit ñi tanal ko doomaade bi ngi ñor ko dundé nga xamni man nañ ko tudd nizam ilahi nga xamni borom taala moko ko normé eh, yee ca ta ñàkk mu ni mën ta ñàkk te xel nangu ko même ginnaaw bi ko borom santane ya jomb mu yéen a nañ ko ba ya nga xam ne kum neex def mu ni kum neex mu ni kum neex def kum neex ba waaye bu demee nii def baggi moo gën demee nii def maanaam euh, norme yëpp nga xam ne boobu moo ko tëral kon bu ñu al xibaadatu mooy lépp waaw mooy li defal mooy defal da xëy na mën nañ koo jàppale dox diggante jàmbeeg boromam kese waaye moo sax ci sax ci la bokk euh, su ko euh, loolu moo tax waaw borom sanc Touba muy barabu jaamu yalla bo xamni euh, kon Touba diggante euh, man barabu bërëb diine lal man barabu diine la barabu diine la ndax loolu sax so ko defee diggante tàqale ak état nak nga xamni ab ab ab ab ab ab idéologie occidentale la bo xamni ni mbira ko fa andi won ñu bëgg tagal tàggale église bi am non ndax ñu bëgg ko tàggaleeg bëgg ci mucc rek tax ñu andi yoy ni état ak ak ak ak mënu ñu ànd nañ berfé état nañ jox César li mom jox. Euh, yàlla moom waaw ah, euh, loola day principe boo xam ne lislaam saxalu ko lislaam moom diine la joo xam ni euh, mënta berfee maanaam doxin la wax ne mënta berfee diine maanaam berfee adduna maanaam lislaam xamul loolu lislaam day boole diine ak adduna teg ko ci benn doxin boo xam ni man maanaam day day day làmb lépp muy dundug nit ki dundug mbooloo mi dundug njaboot gi ci lépp nag lu man doon lu man doon euh, muy muy muy muy muy muy muy euh, ci wàllu wa ci wàllu politique muy doxalin ci wàllu économie muy wàllu liggéeyin lépp sax l'islam moom da caa am xalaat am lu mu ci àtte nañ ca doxal lii su ko defee loolee nag ñu war koo bàyyi xel ci barab bu mel nii kon buñu nee Tuubaa barabub diine la suñ ba ko sanc ngir loolu Euh, te mënees fee bañ a ñëw ndax aajowoo nañ ko nañu bàyyi xel barab boobu altax mu samp sancoon ko lu koy defar lu koy yéwénal lu koy ñoŋal ñu sonne loola lu ko nar a lu ko yàq te du yàqu sax nag xanaa ko koy jéem a yàqu ndax man amoon bis su baabu dara ñu wax rek ñu ñu moytu loolu ku bëgg defar daal nga moytu loolu waaye ñu xam ne barab barabu diine la diine nag ci lislaam ci boppam mooy diine joo xam ne moom aduna ak alakhirah temporel bi ak ak ak ak spirituel bi yep la booleendoo di ko géreendoo niwul nit ki jëlal li sa bop mom ko euh, li yalla mom ko déet yalla mom lépp ni nga jëflante sa bop muy sa ahwal sax te ni nga jëflante say morom euh, ni ngay jëflanteeg mok ni nga jëflante sa borom lépp borom saa da koy euh, bàyyi xel bëgg nga diko ko kon kon de coupe dina la lépp lu diine di bañ da koy bañ lépp lu diine bëgg da koy bëgg moo xam ci ay jëf la wala ci xeetu jaamu yàlla lépp lu wér ci diine daal wér na fi lépp lu wérut ci diine wéru fi lépp lu diine bëgg Tuubaa bëgg na ko lépp lu diine bañ Tuubaa euh, euh, bañ na ko te loolu boo demee ci ñaani sëriñ bi moo ca fees dell moo ca fees dell su ko defee kon euh, ku mu neex ñëwal waaye ñëw gi itam nañ ci sàmm loolu laal nañ sàmm ay teggin nañ sàmm woor may barab bi nañ sàmm woor may ñi dëkk barab bi waaw lu ne xew na fi nag ci luñ fekke lu ne xam nañ fi ci yagut yàggut ay 30 ans ci ginnaw rek amna yu fi ñu fi newoon ah, am nañu daal wax ñepp xam leen tay ji ah, wa kon day mi xam ko jar duko jar duko jar na ko ne nak euh, jël say responsabilité la nga war def nga def ko affaire nguur yi yalla mo koy joxe nit duko joxe euh, waaw ñi ko bëgg jox di leen ko jox kenn mënu ci dara ñim ko bëgg nañ doog nañ ci kenn mënu ci dara waye nañ ci fexé rafet nañ ci fexé rafet ndax kenn xamut kuy fekke kenn xamut kuy jariño nañ ci fexé rafet xamni barab bi ñek dal barab bu spécifique la ñi fi nekk dañoo war nekk ñu spécifique spécificité barab bi nag mooy yar ak teggin ak yiw ak njub ak mbaax gi ko borom sanca woon ak jaamu yàlla maandu doylu yaakaar sëriñ bi loolu moo ku fi jëm indi fi loolu ku fi mënta tege nekke loolu demal seeti feneen ku fi nekke leneen te te te te te te te wàññiwula dara nag xamal ne la nga ne ab jay la is waaw sa nastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun nag day yàlla koy teg nit ñi waaw mel ne xam naa kon day mel ne mbokk yi ak si nañ fu ñu war a yëkkatee jotaay mu doon seen émission euh, islaahu daan seen mbokk maam Balla Mbacke Maxtaar ñu doon waxtaan tey rek ci euh, andi ay ay ay waxtaan ci Touba di ci worma ji daal lu ñu ko war a wormaale surtout ci xeetu tolluwaay yi ñu toll ci wàllu euh, élection yi daal ñu wormaal Touba wormaal waa Touba wormaal sëriñ bi surtout presse bi nag ñu bañ koy dugal ci ay mbir yoo xam ne di manipuler yëf yi maanaam surtout baatu Touba ba mu wax nga xam ne dafa bari lu muy firi léegi ñu di ko manipuler noo xam ne waaye li ci xol yàlla xam na ko te mooy fay. en tout cas ku fi jëmel lu ñaaw ci sëriñ bi dal mom neena da nga delloog sa lu ñaaw te it da nga tak da nga and ak tàngoorat nag tàng alaxira wala asbillah loolu kenn ko ne yakoy moyele eh, sa bop sëriñ mom amna yërmë de waye bo ñëwé ci mom di lor sa bop itam ah, yalla yalla sa bop yalla sa bop yalla sa bop lool mom eh, wax dëgg yoonam ci su ko defee kon loolu la ñeen di li ci borom lañu sant gërëm li ci ñoom nañ jéglu du jay sëriñ cheikh sam nekk ci eh, caméra bi su ko defee xamna di leen jox benen dajé kàtt borom bi di ñaan yàlla mu may gudd fan gu wër waaye di may sutura su ànd ak njégal waaye wërsëg ànd ak barke di wax mu borom ne ko salli suma salman yaa xarib ala basidi ilkiya mujib sayidina muhammadin bil ali wa sahbi wala sajib suali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu taala ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barak hamdan liman awrathana alkitaba حتى به عنا نفر عتابا حمدا لمن أورثنا الكتاب حتى به عنا نفر عتابا مصليا على وسيلتي له خير الورى الذي أرائي له هذا وإني للذي يكفي الضرر عني توسلت بأسماء الصور فقلت راجيا قبول نظمي وأن أكون طاهرا من وصمي